créé kenn du tëdd it wax ne lii laa bëgg a gis kon bu ñëwee jàppal ni shay'un azim wa fihi sirrun secret bu rëy mi ngi ci gént te bu leen koy xeeb bu leen koy oyofal kii wérlu tur yàlla bu mu woyofal li ko yàlla di won commerçant bi noonu buur bu géntee dafa war a xam lu mu doon président bu géntee war na xam lu mu doon jaaykat boo géntee war nga xam lu mu doon liggéeykat boo géntee war nga xam lu mu doon say njaboot say am di jàmm fu waay gént rek ak lu mu gént war na xam génte gi fan la ko jëme ak lu ci toog ak la ca tegu ak la ca tegu ñu bàyyi ci xel ñi ñëw ci gaynde gi kii wax ni dafa gént gaynde euh, mu muy laaj ma bayaanu zalika naw nawayni min anwail asadi gént gaynde dafa am ñaari façon gaynde kese nga gis ko ni muy dem ngay dem yiw la euh, bokkul nag boo xam ne bi dangay ngay ne jëflante wala yi mel na dinañ ci ñëw kii neen dafa gént ci ci boppu doomam wala soxnaam moo gént ci boppam ay teeñ teeñ yu bari ci bopp cat ak làmmiñ la nit ku ñuy tudd lu bari tudd yu bari yi ñu lay tudd mooy tegtale ne teeñ dangay farataal di ko gis ci sa bopp lu bari mbokk mi ne dafa gént euh, soxnaam moo gént am ñaari doom maanaam mu mucc ñaari doom nee na ñu won ko ko nees tuut ki ko rewle woon ñëw nekk say doom génn nañu àdduna muy laaj maa bayaanu zalik tekkiwul ne dafay am doom doom ji génn àdduna laysa al amru kazalik bal innama yaati al amru bil aks sanaati bihi xaalan ñaari doom yi wërsëg la al ibnu fi l xulmi xayrun wa risqun wa barakatun wërsëg wi ñëw la waxani su ñëwee du fa yàgg ni muy ñëwee noonu lay demaatee loo am du dog ci sa loxo mooy nga am ñaari doom mucc ñaari doom léegi teg leen médecin bi ñëw na la sa ñaari doom yi génn nañu àdduna alal la juy ñëw ci yow lu mu bari bari bari bu ñëwee du fa toog ni muy ñëwee noonu lay jeexaate nañ ci bàyyi xel euh, beneen bi ci tegu mbokk yi kii neen dafa gént euh, ci benn béréb boo xam ne bii dafa demoon soxnaam moo fa demoon du tuur ndox fekk fa xaalisu téeméer moom mu ñëw jël ko indi ko di ko laaj kan moo ko moom xaalis nag wa fi wa fi wa fil maali euh, bayaanay ni xaalis dafa am ñaari mbir su dee ay këyit la baax na su dee weccit la ñàkk bu tar la kii ne dafa gént ba tey jaan màtt ko beneen jaan tëdd ci wetam jigéen su génte jaan matt ko njaboot la su jaan tëddee ci wetam njaboot la différence matt bi ak ki tëdd ci wetam te màtt ko mooy ñaari njaboot yi di ci am koo xam ne kii ku dal ku teey ku dégg ndigal beneen bi di am ku dëgër bopp ku naqare waxal ku naqare jubbanti hada huwa bayaanu hadayn alxolmayni fi laylatin waxidatin ñu bàyyi ci xel bu baax mbokk mi ne dafa gént nekk ci benn bërëb di daw jóge ci bërëb ba dugg benn magasin wala boog ñu di ko dàq mu dugg ci benn bërëb boo xam ne bii daal bërëb la boo xam ne bii bu leer la wala bu yaatu gént ñu lay dàq taabun wa mashaqatun wa diqun shadid wa suubatun laa tuaddu wala tuxsa gént ñu ne dàq jafe-jafe yu tar la loo yaakaar mu jafe loo séentu doo ci jot loo am du toog sa loxo amaa nag nga dugg fu yaatu fu am lumière euh, yiw la baax na am rey ni muxtalife nii mbokk yi gént dina ñëw ñetti yoon ci benn guddi te benn bokkul ak moroomam fu mu jëm nit dina gént ñeenti gént ci benn guddi te benn bokk ci ak moromam fu mu jëm fala budda mënul ñàkk ñu teqaleel la benn bu nekk fu mu jëm lu ko tax a jóg ak lu muy tekki euh, beneen bi ci topp mbokk yi kii ne dafa gént soxnaam gaynde ñëw dugg ci biiram fekk mu nekk état de grossesse mu ëmb gaynde gi dugg ci biiram lekk doom ji nit ñi ne déet ne na jiit màttaat ko mu nekk ñaari mbir yi teguloo ci moom fa taajabat bi zalik muy lu doy lu jara bàyyi xel lu jara teewlu yow mi ko yónnee tey boroom laaj gaynde su duggee sa biir xar sa biir fekk fa sa doom màtt ko doom jooju su dugg su màggee su dee jigéen alalam dana bari waaye su dee góor it dana falu na ci bàyyi xel jaan ji ko màtt nag li jiit ji ko fett day tegtale ne insha allahu ibtidaau hada tifl ibtidaau xayaatihi su'ubaatun wa intihaau xayaatihi futuxaat min arrisq commencement am dina jafe mujjam dina baax mooy jiit bi ko mat gaynde gi ñoo fekk ko ci biir gaynde su fekkee doom ci biir jële ko fa màtt ko doom jooju su màggee su dee góor dina nekk kilifa dina nekk njiit te garaatam dina yokk nañ ci bàyyi xel jiit bi màtt yaayam fi mu toog walla mu fett ko yàlla nga koy won ne ko doom ji su juddoo sa jafe-jafe dana wàññeeku yi nga nekkoon yëpp yàlla dana la ko teggil min as-su'ubat wal mashakil allati taraakamat ala ra'si hadhihi al-walida inna allaha ala kulli shay'in qadir yàlla dara taw ko nañ ci bàyyi xel bu baax muy lu am solo muy gént gu jara bàyyi xel waaye liñ koy digal rek haatayni sadaqatayni fi ma bayna al qamxi wa durrati ixraaju haatayni sadaqatayni ñaari sarax yiñ fi waxoon nañ ci bàyyi xel mboq ñaari kilo dugub ñaari kilo mboq góor dugub jigéen fatiha benn bu sell ngeen boole ci iza jaa nasrullahi juróom ñaari yoon euh, soxla lu mu diis diis lu mu jafe-jafe lu mu tar-tar boo ko ci boolee ñaan ci sa boroom génnee ko sadaqa yàlla defal la ci lu kawe sa njort euh, na ci bàyyi xel waaye haadihil walida ki nga xam ne kii moo gént gaynde gi ñëw màtt doomam ci biiram jiit fett ko ñu ngi koy wax ne ko su fekkente ne jàng na alquranul karim nay faratal di def inna ataynaaka alkawsara fa salli li rabbika wanhar inna shaani'aka huwa abtar mu ko def diggante timis ak gee mu di ko def 66 diggante timis ak gee ndax secret yi mag yëpp ci timis ak lay jaar euh, nañ ci xel mbokk yi ñi ñëw ci beneen laaj bi kii neen dafa gént di wax ak fas raat annaha tataxaddas ay tatakallam maa alxisaan gént di wax ak fas nag ñàkk dégg gu tar lay indi diggante doom ak wayjur wala diggante jigéen ak boroom këram wala diggante jigéen ak jigéen beneen bi ci tegu mbokk yi neen dafa kii dafa neen dafa gént lu bari di dem seen dëkk gine te moom te moom mi ngi Sénégal euh, mu jaaxal ko lool bari na lu mu koy gis li ci ëpp li koy indi mooy loo yaakaar balaa sotti day jafe luñ la dig doo ci gaaw a jot te loo séentu it mu am xat-xat mooy ngay gént nekk foo xam ne fii daan nga fa nekk waaye nekkatoo fa jar naa bàyyi xel kii nag moom dafa gént euh, sëñ Babacar si radiallahu anhu gént yi euh, sëriñ Moustapha si euh, gént ba tey it sëñ Saalex Mbàkke rahmatullah alayhima mu muy laaj ma bayaanu zalik wala xat qul naa zalika miraran wa takrar wala nazalu nukarriruhu رؤية الأولياء والصالحين والعلماء خير وبركة وفرح ويسر جس نتو يالا خيوالا يوكتلا أبيكولا ورسغلا سواء هو في قيد الحياة أو هو رحل إلى جوار ربه كلاهما على حد سواء إما من دون يولا جننا أدنا خيوالا بننا ننجبا يخيوالا Euh, mbokk yi dañuy jéggulu xat-xataay waxtu wi incha allah di leen wax ni euh, dañu jéggulu lool ndax waxtu wi moo ñu dab ñu di ci jéggulu lool ndax am na ku yónnee bataaxalam sax di laaj